asalaamaaleykum sama gars ñi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci Infofoot en temps réel dimanche le 7 juillet 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñu ngi saako nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification bi pour que vidéo yi dugal nga bokk si njëkkee njëkk gis fii ci Infofoot en temps réel gars yi aussi bu leen di fàtte di like de leen seen vidéo bi lu ama am solo ci seen bi xibaar yi ñu ci ànd ak Serigne Cheikh Al Amin al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu taala anhu borom fas fas gi nga xam ne ci ngóoram rek lay dox sëriñ bi. fas ga ngi lakk dëkk waaw moom ñëpp xam nañ liy mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne dangaa nekk mag ba ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santiroota sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kattan loolu senegal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo gànnaagale njëriñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbacke surtout Seex Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu taala anhu kon na gaañ fas gaa ko ci nu mu xibaar yi dañ koy commencé fii ci Sénégal wax ci doomu Sénégal bii di Pape Daoud Diong. nekkoon fële ca equipe bu ñu wax euh, Darou Salaam moom mi nga xamante si ni football na ci li nga xam ne moom mooy xale yi yu Sénégal moom milieu de terrain bi nga xam ne am na lu tolloog 18 ans li nga xam ne moo ko teewoon a jël ay bagaasam quitté fii ci Sénégal pour jëbali fële ca France ci benn club bi ñu tuddee donc Strasbourg mooy que dafa amoon problème mu visa problème boobu nag résoudre nañ ko officiellement donc kii di Pape Daouda. suba normalement ci lënd bi lañ koy xaarandi pour que mu wàcc ci réew ma li nga xam ne moom mooy France pour mën a fekk ji kii di Habib jaara ci biir équipe boobu di Strasbourg ki nga xam ne si moom mooy Chelsea ak ki moom Strasbourg xam ngeen ne kenn la xam ngeen ne moom la saison dernière donc jot naa def ay quelques entraînements ak équipe boobu nga xam ne moom mooy Chelsea ce qui veut dire que bu fekkee ne réussir na ci club boobu di Strasbourg moom Chelsea la jëm moom kii di Pape équipe bi di Daaru Salaam ñoom dinañ ci récupérer diggante un million jàpp ba deux millions yoo xam ne euro lay doon dugal naa ay bit yu bëree bëri fële ca Francfort ca Paris saint nag juróom-ñett bi dong laa fa dugal huit ci saison bi ñu génn donc xam naa ne saison la boo xam ne bëgguma di ko fàttaliku ndaxte saison bu bon a bon la loolu moom mooy kàddu yi nga xam ne kullu mu ànd yëkkati na ko di donc doomu France bi nga xam ne actuellement mu ngi ci Europe bi moom nee na xam na ne saison bi mu génn nii baaxul ak Paris wit bi wuute na ak la nga xam ne moom la daan dugal donc dina gën a liggéey pour jéem a mën a am lu gën li mu am daaw comme niñ ci annoncé woon démb Paris Saint-Germain ñoo ko doon xëccoo ak bayaax na di kii di di Désiré Doué donc di attaquant bi nekk foofu ci Stade Rennes gaañ nag mbir mi dina gën a saf ndaxte anglais yi dugg si nañ Tottenham Chelsea Crystal place ñetti club yi yëpp ku ci nekk donc bëgg na ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Désiré donc Désiré Doué donc di joueur boobu nga xam ne mi ngi foofu ci Stade Rennais 19 ans la am kon xëccoo bi ubbeeku na fi mu toll nii ñu xool kuy gagné dañuy wax ci kii nga xam ne moom la ñuy tuddee ak Lewis donc di attaquant bi ci boobu di AS Monaco Crystal place moo ci nekkoon di ci liggéey liggéey bu mucc ayib mais nag la problème mooy que Paris Saint-Germain dugg si na. ci mbir mi tamit donc ki diggante Paris ak Crystal Palace ñuy xëccoo attaquant bu AS Monaco bii nga xamante si ni dëgg la Crystal Palace mënul xeex ak Paris ci côté économique ci côté xaalis mais man naa xeex ak moom ci côté sportif maanaam daal temps de jeu kon fi ñu toll nii Paris ak Crystal Palace ñooy xëccoo xale Monaco boobu fi ñu toll nii nag xale bi daa bëgg a toog foofu ci AS Monaco ci premier temps bi mais nañ xool deuxième temps bi ba xam daa bëgg a dem wala boog day continuer ci décision bi. dañuy bàyyi ko France dem ci Espagne fekk fa kii di Alex Berenguer daayi Alex di benn joueur offensif bu équipe boobu di Bilbao atum 2020 la signé woon ci club boobu di Bilbao yenn ci ay club bu Liga ak yenn ci ay club yu nekk ci championnat bu Italie bëggoon nañ kaa signé gratuite ndaxte contrat jeex na depuis le 30 juin mais une bonne nouvelle pour club bu basque boobu noonu kii di donc euh, Berenguer officiellement yokk na contrat ba atum 2027 dañuy continuer ci biir Espagne wax ci kii di Aperrius gaa ñi xam ngeen ne Aperrius signé na ci club bi ñuy tuddee waa naa ci benn somme bu toll ci 8 million ak benn joueur bu xale bu ndaw bu jigee Girona dem fële ci Sporting bu Braga donc dañ kaa dugalante 8 millions la équipe bi di Girona teg ak benn joueur Barcelone am na ci transfert bi cent 800000 par rapport ak li nga xamante ne moom mooy formé bi mu formé woon joueur bi ak pourcentage nga xam ne amoon na ko ci kon Barcelone. dem bi nga xamante si ni kii di Apérus dem na ko ci Girona jot na ci lu jege un million ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Pau Victor di attaquant bi nga xamante si ni moom mooy meilleur buteur ci Barcelone xale yi ci saison bi ñu génn club ba nga xam ne fa la Mikayil Ngor Faye nekk di Barça Atlantique Barcelone nag amoon na possibilité pour jënd ko 3 millions mais jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci côté koppar moo tax mënut a woon a fay Girona. fi ñu toll nii nag Barcelone mu ngi continuer ay pexem pexe yi nag mi ngi ciy bàyyi xel ko si demal ne Oriol Romeu wala bokk même kii di Garcia mais daal Barcelone mi ngi liggéey pour indiwaat kii di Pau Victor mi nga xam ne Girona moo ko moom. équipe bii di Atlético de Madrid bu moytuwul dina perte xale bi ñuy wax Rodrigo donc Riquelme di xale boo xam ne si nii Atlético am na ci moom yaakaar mais club bii di AS Rome jot na kaa proposé loo xamante si nii wuute naag li ko Atlético di fay di salaire ru 1 million cent loolu mat na ñaari yoon li ko fa Atlético di fay équipe bii di Atlético bëgg na si 30 million équipe bii di Rome yaakaar na ne bu tegee 20 million dina ko am mais li nga xam ne mooy entourage joueur bi ci boppam ñoom ñoo gis ne jour bi dafa war réew ci Atlético kon Atlético de Madrid ak Rome dinañ continuer les négociations pour kii di Rodrigo Riquelme. dañuy wax ci joueur bi nga xamante si nii moom la ñuy tuddee Diego donc Llorente dafa bokk ci association donc Maximiliano Wuppertal mi nga xam ne dafa nekk Borussia Mönchengladbach daan dernière dafa bokkoon ci joueurs yi nga xam ne dañoo signé woon ak Leeds ne bu ñu wàccee deuxième division dañ leen ablé donc moo tax moom ba Leeds wàccee deuxième division Leeds abal ko AS Rome donc moom tey jii nii tàggatoon na ak AS Rome mais day dem Leeds United mais du fa toog dafay waat dem Espagne. ci benn club bi ñu tuddee Real Betis fa nga xam ne fa la Youssouf Sabaly di football ki nga xam ne si ne moom la ñu tuddee Diogo ko gisee nii. beneen bi mooy Real Madrid lañ ko formé donc Real la dekkoon après ne moom mooy Betis dina ko jëndee trois millions donc ci biir semaine bii nii dina def visite médicale am et que contrat wu ñeenti at. dañuy wax donc gars yi ci kii di Rocco Vota donc comme nañ ko fi annoncé woon dëpp donc ci weeru mai ba tey donc di xale bi nga xam ne waa Irlande dañoo am ci moom yaakaar bu baax a baax nekkoon fële ca Celtic Glasgow donc tey jii nii na benn contrat ay équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Watford di club ba Ismaïla Sarr nekkoon ci deuxième division pour deux cent mille euros donc mooy bonus bi ci fàttali nag ki nga xam ne mooy Watford dina am beneen joueur bu ñu tuddee Moussa Sissoko di donc milieu de terrain français bi war a jóge fa li nga xam ne moom la ñuy tuddee Nantes gratuitement pour signer foofu donc Watford en D2 anglais mi ngi waaj a signé deux joueurs gaañi comme li ñu ko fi annoncé woon aussi dem démb ci guddi pour équipe bi di folam wala Leicester City préparé pour def trois signatures donc Caleb donc Okoli bi jóge atlanta ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee Codrova Riit mi jóge woon Fulham Codrova officiel na depuis démb comme ni nga ko gisee nii Michel Holding aussi officiel na di milieu de terrain bu si am ci yaakaar mais nag si amul pexe par rapport ak donc su Divock Burkhalter mi ngi bëggoon ca Leicester City donc jeune bi signé na contrat bu ans pour 5 millions. am na yenn club bu Arabie Saoudite yoo xam ne ñi ngi jéem a approché Mohamed Salah. maanaam ni ngi koy jéem a jege mais di ko nañ ci démb u barki démb que ne Liverpool ci boppam li ñu bëgg mooy renouveler contrat bi moom mooy bëgg-bëgg kii di UCS donc di nouveau directeur sportif bi donc équipe bii di Liverpool position bi ñu taxawee actuellement mooy rejeter toutes les propositions et donc proposé benn nouveau contrat léegi nag est-ce que Mohamed Salah dina accepté loolu moom dinañ ci xam dara lu yàggul dara dañuy wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Thiago Alcantara nekkoon. foofu ci Liverpool après ba contrat am jeexee moom nag mi ngi am fanior at ak ñett xam nañu ne bokk na ci joueurs yi nga xam ne ñoo gën a technique mais dix yi nga xam ne moom lañ gën a apprécier ci génération moom kii di al Alcantara mais nag ay gaañu gaañu yu bëri xaw ko sonal tey jii nii ci dimanche bi ci la dëggal ne day bàyyi li nga xam ne mooy football à l'âge de 33 ans moom nag jot naa aw ay club yoo xam ne club yu mag a mag la fu nekk la leen dégg bi ci njëkk moom mooy Barcelone nga nga xam ne falan ko formé. beneen bi mu dem ba yaax na mi nekk en 2013 beneen bi aussi mu aw à Liverpool donc ce sont des bi yoo xam ne lu mu gàtt gàtt ku ci nekk gagné na lu mat ay euh, Ligue des champions yu toll ci euh, juróom wala boog ñeenti Ligue des champions moom kii di Thiago Alcantara nag ba muy quitté Barcelone xale la woon parce que en 2013 Thiago mi ngi amoon vingt 22 ans diggante 2009 ba 2013 dugal na fubal na fa 101 match dugal fa 11 bi moom nag li gënoon a tax mu jige fa. mooy que Xavi dafa nekkoon ci ay guddeem et que moom mënul woon a continuer di topp ci ginnaaw Xavi parce que dafa bëggoon temps de sa bu doy sëkk loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo waraloon ak départam bokk na ci aussi li ko waraloon muy dem ki nga xam ne mooy Pep Guardiola ca Bayern Munich nekkoon loo xamante ni Pep Guardiola après ba mu demee fexe liggéey convaincre ko pour indi ci club boobu. ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Olise jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi ci Bayern Munich pare pour passer li nga xam ne mooy visite tey nii ci dimanche bi li nga xam ne nag moo am comme excellente nouvelle pour les français bu ma waxee pour les français muy waa réew moomu di France mooy que Bayern na mi nag d'accordal na ki nga xam ne moom la tuddee Olivier pour que mu participer ci Jeux yi xam ngeen ne club yi ci bëri bëri dañoo bañ seen i joueurs dem ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Olivier nag gaañ yi euh, moom Bayern na mi nag nee na ko man ngaa dem ci équipe bu Thierry Henry boobu noonu pour représenter la France. ki nga xam ne moom la ñuy tuddee donc Moisken di donc attaquant italien bi nag foofu ci Juve suba ci li nga xam ne moom mooy altine bi dina dem ci équipe bi ñuy tuddee Fiorentina ci fàttali nag contrat ak équipe boobu di Juve mi ngi war a jeex 2025 moom nag 12 millions la équipe boobu di Fiorentina di jëndee nekk ancien club bu kii di Babacar Xuma donc ki nga xamante si moom la ñuy tuddee Moisken donc suba ci lundi bi dina passé li nga xam ne moom mooy visite médicale ki nga xam ne moom la ñuy tuddee taaw Cancelo xam nañu ne aw na championnat bu itali comme équipe bu si Inter wala boog même Juve après ci la jógee pour dem City ci benn dogalante ba amoon diggante Juve ak ki nga xam ne mooy siti ci kii di Danilo ak Cancelo salon donc yenn ci ay informations yi ñu jot am te mu doon yoo xamante si ni yu fiable la ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Cancelo proposé nañ ko Juve maanaam daal moom wax nañ waa Juve ne leen am na jour bu fi disponible léegi nag li nga xam ne mooy xaw ñuul ci soow mi mooy que joueur bi ci boppam ba tey jii nii fi mu bëgg a football mooy Barça mais nag xam nga ne mun a jël léppam def ko Barça Barça bu mënut a génn ci jafe-jafe yi mu nekk boobaa day am ay jafe-jafe moo tax Jorge Mendes li ko war nag mooy day xool club yu mag yi nga xam ne ñi ngi dikkaat comme Juve ak yeneen ci ay équipe proposé leen ko bu ko defee bu ko Barça mënut a jël. ñooñu mañ ko jël Juve nag teel naa yëgal ki nga xam ne moom mooy Cancelo ak ñi ko wër ne leen mënuñ kaa jënd direct liñ man mooy àbb ko donc Cancelo mbiram dara leeragu ci mais li nga xam ne moo am comme information mooy que ki nga xam ne mooy Cancelo Barça la bëgg a football waaye tamit mi ngi am yeneen possibilité moo tax man Mendes jël ko proposé ko Juve Juve mi ngi étudier option bi Juve googu ba tey beneen option bi nga xam ne ñu ngi koy Eutier di option bu kii di Todibo nekk défenseur français bi nga xam ne tey jii nii bu fekkoon ne ay jafe-jafe amul ci diggante UEFA ak Manchester United ci règle bi heure bii nii xëy na jour United lay doon mais nag ki moom Nice moom moom United donc transfert bi mënul amante comme niñ ko soxlawee ki nga xamante si nii donc moom la ñuy tuddee Todibo Juve bëgg na ko te pare na teg ci table bi 40 million mais 40 millions gëm naa ne lu tuuti lay doon proposition boo xamante si nii donc bu demee tamit équipe bii di dina ko rejeter. ci atum 2020 la demoon ci club bu portugais boobu ñuy tuddee FC Porto ñu koy wax Mehdi Taremi donc di attaquant dëkk ci réew mala di Iran donc ab iranien la moom dugal na fa donc ay bit yu bëree bëri football fa lu toll ci 182 match moom tey jii nii la ñu officialisé donc jugee na foofu xam ngeen nag fi mu war a dem parce que depuis deux mois ñi ngi ciy wax Inter de Milan la jëm moom ki nga xam ne moom la ñu tuddee Mehdi Taremi donc di attaquant bu mën dugal mais bu am gabarit mais aussi bu am expérience parce que dugg na ci li nga xam ne mooy trentaine maanaam daal fanweeri atam mat na ki nga xam ne moom li ñuy tuddee royal donc euh, Emerson donc di ki nga xam ne moom mooy latéral droite brésilien bi après donc bi mu waxee fan yële ñu weesu ne moom dégg ñu ne AC Milan da kaa bëgg rek mbégte la ci moom daa mel ne mbégte bi dina gën a yokk ndaxte Milan pare na pour yéen génne 15 millions teg ko ci table bi pour mën a récupérer ki nga xam ne moom la ñu tuddee Emerson mais nag 15 millions yooyu gëm nañu ne lu tuuti lay doon. parce que xibaar yi ñu jot jot mooy que équipe bii di Tottenham pare na pour rejeter offre 15 millions ci kii di Emerson Royal may li wër bu wër daal mooy accord am na diggante Emerson ak AC Milan pour contrat 5 ans li des mooy Tottenham ak Milan Milan mi ngi pare pour proposer 15 millions. après bi contrat am jeexee ak équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Borussia Dortmund. am na ñeent ci ay club yu pare pour signer kii di Mats Hummels très expérimenté benn club bi moom mooy Como di club ba Fabregas nekk di dugg di yëg Serie A beneen club bi moom la ñuy tuddee Atalanta Bergame non pas Atalanta mais boloñ mi nga xam ne dañoo dañuy perte kii di Riccardo yi et beneen équipe bi aussi moom la ñuy tuddee AS Rome donc AS Rome Como et Bologne yëpp ku si nekk soxal ne kii di Mats loolu senegal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci new kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbàkke surtout Seex lu Muxtaar Mbàkke radiallahu taala anhu kon na gaañ fas gàngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee